waaw jërë nga jëf euh, SAES tey euh, ci université Sénégal yëpp dafa amal marche suivi de point de presse pour euh, dénoncer aussi ay manquements ci wàllu yu bare bu njëkk bi mooy wàllu non respect du protocole d' accord SAES gouvernement bi nga xam ne signé nañ ko le 6 janvier 2023 Euh, beneen poñ bi mooy li nga xam ne université yëpp dañ ko tëj pratiquement presque naa ci delluwaat léegi parce que ministre Demba a na ci benn chaîne télévision te foog naa li mu wax moom yenewul maana parce que soo xoolee léegi université yi bari tëj nañu te daañu dellu ci raison yi et raison des fermetures de la fermeture euh, beneen poñ bi mooy euh, quelque part aussi les les dangers qu'il y ne sur académique vraiment il faut que ñu toog xoolaat bu baax a baax parce que su ñu deful ndànk euh, dañu nar a ñàkk année deux mille vingt deux vingt trois je parle de deux mille vingt deux vingt trois mais pas vingt trois vingt quatre. Mm-hmm. donc daal loolu loolu bokk na ci. Mm-hmm. Euh, ci rapidement en tout cas ci poñ yi nga xam ne moom moo ñu boole ak ministère. ak bari na ay poñ ah, donc mais je pense que au fil de l' émission mën nañ ci dellu. léegi dañuy ñëw ci protocole d' accord bi man manquement yi ngay yi ngay wax ni lan la lan moo manqué wala bokk lan kenn waxante woon te ñoom defuñu ko ba tax tey euh, ngeen bëgga a def sitting ak point de presse. waaw soo leen xoolee gouvernement yëpp c'est la même chose dañu tàmba ñëw signer protocole d'accord engagé signature publique bi après duñu ko respecté loolu moom yàgg nañu fi yàgg na fi soo xoolee syndicat bu nekk loolu moo koy boole gouvernement bi c'est moins la signature que le respect de la signature le respect de la parole donnée poñ bu njëkk mooy wàllu augmentation salaire yi nga xam ngeen ni gouvernement bi jëg gënoon na benn moment mu augmenter salaire pour fonctionnaire yëpp sauf les enseignants à l'époque président bi recevoir oon ñu ñu waxtaan ak moom et mu boo ñu ci augmentation bi nga xam ne amoon na euh, c'est vrai il y a une partie qui a te mise en œuvre mais la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est que euh, montant yi correspondant à l'augmentation n'ont ba tey sax am na université nga xam ne jotuñu seen salaire euh, mois bi nii mois mois bi weesu te mois ñaari mois yi ñëw salaire amul ci université parce que montant yi correspondant à l'augmentation n'ont pas été injecté boobu mooy poñ bu njëkk bi deuxième point bi mooy euh, maanaam la question du recrutement d'enseignants tey soo xoolee euh, soo xaymaa nous avons un enseignant pour soixante-dix étudiants donc alors que norme yi c'est un pour vingt donc étudiants yi bari nañu car macha allah euh, c'est vrai on a un scolarisation brute est acceptable mais euh, du côté du recrutement ça ne suit pas te ñu amoon ci yaakaar parce que président bu ñu recevoir en avril deux mille vingt deux waxoon na nañ ko defal programme de recrutement deux six mais boobu léegi dégguñu ko gisuñu ko en fait ci ministre yi nga xam ne ñoo war a mettre en œuvre décision présidentielle boobu yëngutuñ ci ba nga gis ni doc docteurs yi bari nañ fi il y a 6500 vacataires qui sont disponibles au Sénégal qui sont des docteurs euh, tey soo xoolee euh, enseignants ils sont à peine 2500 donc euh, nañu recruter au moins ñu jëm jàngale normalement donc li nga xam ne engagé nañ ko ils s'étaient engagés mais l'engagement n'a pas été respecté am na wàllu infrastructure yi dañ fa université yi nga xam ne ministre wax na démb li nga xam ne vraiment yenuwul maanaam parce que bon mu nee na chantier Ziguinchor yi en euh, fii pare na <laughs> mais vérif toutes les photos sont là on peut vous les partager. kon en fii parewul. parewul je persiste donc euh, <laughs> parce que loolu moom. Euh, est-ce que photo yaa ngi nii madame donc mën naa leen ko mën naa leen ko bàyyil sax soo leen bëggee mën nañu gontu Ziguinchor léegi dama xooli donc loolu Ziguinchor sa réewul donc c'est donc li mu wax yenuwul maanaam parce que parewul su pare woon daañu ko wax def nañu change tour yëpp photo yi mën naa leen ko bàyyil su may dem naa leen dawut photo yëpp bàyyi leen ko ngeen xool seen bopp donc parewul li mu wax dem 12 ans fii pare na parewul mhm. donc euh, wax na ko démb et parewul depuis 2015 ba léegi comment on peut imaginer des chantiers depuis 2015 pare parewul te li ñu li ñu seetlu mooy chantier yi nga xam ne ministère moo koy gérer ces chantiers là n'avancent pas par ne président bi jëloon na ko ak USN bi nga ne président bi jël na ko ces chantiers c'est ngi avancé et ñoom on se félicite de cela mais yi nga xam ne ministère de l'information publique moo koy gérer depuis 2015 comment on peut construire un bâtiment depuis 2015 9 ans pour bâtiment ngi donc yooyu vraiment. Mhm. c'est mon problème. soo demee Bambey bâtiment yi c'est tellement mal fait que da nga gis les rayons du soleil à travers le mur da naaj bi day jaar ci mur yi nee nañ suñu collègues yi bu ñu dugg ci salle parce que plafond yi ñoo ngi daanu. et ça dafay daanu c'est délabré. parce que ça a été mal fait ça ne répond pas mënuñu nangu étudiants ak enseignants yi nekk ci conditions yooyu dañu leen ne bu ñu fa kenn jàngal jàngati jàngalti parce que il va nos responsabilités pour sécurité étudiants yi ak enseignants yi donc bari na ay chantier yi nga xam ne mhm. des années durant kiiwul am na yeneen point euh, wàllu réforme euh, wàllu réforme évaluation des réformes loolu président décidé woon na ko mais ministre dafa ci dara CNAES euh, orient LMD bi ñoo ngi xaar ba léegi évaluation des réformes Euh, ak reche wàllu recherche dégg nañ ko dem ay supercalculateur mais c'est c'est pas ça il y a le problème la gouvernance de la recherche les textes doivent être mis en place ñun on a réfléchi des textes aussi ministre bi war na génn textes yooyu université yi xool ko ñu jëm avancé donc ce discours là général sur des choses qui n'ont pas été faites la ñu war a bàyyi ñu dellu suñu xel wax réellement ci question yi moo gën en fait. Euh, D'accord. voilà.